asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne yéenay seetaan chaîne bu bees bi nekk kay seetaan TV ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ñëw ak yéen ci seen beneen émission bi nga xamante ne moom mooy wolofal tey jii nekk suñu premier numéro waaye ñi am si suñu émission wolofal gan boo xamante ne wala kilifa boo xamante ne moom lañuy ñuy fas yéene di ànd ak yéen ci émission yëpp tey jii nag ñoo ngi am ki nga xamante ne moom mooy Abdou Khadre Faye waaye nekk étudiant. nekk koo xamante ne lépp lu jëm si wàllum làkk si lay yëngu rawatina làkk bi ñu naan wolof Abdou Khader niw naa la. maa ngi lay fay Cheikh Fane di nuyu ñëpp di nuyu mbokk internet bi di nuyu ñëpp waaw comme niñ ko waxee rek man la seen mbokk Abdou Khader fay euh, étudiant la damay yëngu ci li nga xamante ne damay bëgg a wane ni làkkum wolof làkk bu riche la làkk bu xóot la làkk bu am solo la ci loolu laay yëngu loolu yokk naa tax ma nangu seen invitation pour ngeen am ngeen ma ci laaj ma tontu ko solo yàlla jërëjëf mbokk internet yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la suñu invité bi wax xam nañ ne tey ñu ñëpp Sénégal lañ nekk waaye làkk bi nga xamante ne moom lañ nàmp moom lañ am làkk bu riche la te yaakaar naa ne moom mi nga xamante ne tey xam na làkk bi dina fas yéene indi nañu ay mots yoo xamante ne boo leen ko dégloo di ngeen xam ne wolof am na làkk yoo xamante ne amul beneen làkk boo xamante ne njort nañ mi ngi si kon Abdou Khadre tey jii nekk suñu première numéro ci émission bi di wolofal yan làkk nga war a indil ñi nga xamante ne ñooy seetaan chaîne bi nekk Kaay Seetaan TV Euh, mun naa ni moo yu may indi sax mun na tax a bëri noonu mun na ko mun naa bañ a bari noonu mhm, mhm. Euh, yenn mooy li nga xamante ne yàgg naa cee waxtaan ak sama yenn xarit yoo xam ni mhm, jàng nañ ay tubaab ak sama yenn tànt yoo xam ni yàgg nañ ci tubaab laaj naa leen ko xamuñu ko ay waa ci wolof la waaye xamuñu ko loo tax tey ma ñëw pour laaj ko mbokki internet bi pour ñu tontu ma ci jërëjëf yaakaar naa ba leen déggee waxam am na lu bari loo xamante ne mi ngi ci suñu làkk bii di wolof tey duñ ko dégg feneen moom nag def na ci ay gëstu yu am solo mais ba léegi amul li nga xamante ne moom mooy réponse bi yow miy seetaan ci yow lañ yaakaaree li nga xamante ne tey moom mooy réponse bi Abdou Khadre yan moo la. mooy booy seet mun naa ne ci xeeti dóor la. Mhm. xeeti dóor la. ci biir dóor mu am yeneen baat yeneen waat yoo xamante ne ëmb na ko baatu dóor ndax dóor booy xool mhm. mun nañ ne boo koy tekk ci tubaab mun na ne mooy frappé frappé looloo tax may laajte mhm. baatu konk mhm. nun koy waxee konk nun koy waxee ci tubaab ak baatu ndulli nun koy waxee ci tubaab ak baatu rëq nun koy waxee ci tubaab ak baatu xët xët ñu mm-hmm. koy waxee ci tubaab yooyu mm-hmm. yëpp ay ay façon la mm-hmm. euh, ak baatu euh, kuccal kuccal nun koy waxee ci tubaab ak baatu euh, ñef waaw ñef nun koy waxee ci tubaab yooyu juróom benni waat bëgg naa daal ñu ñu wax ma ko di nga xamante ne jàng nañ tubaab maa ngi lancé ñëpp daal di wax ak ñëpp ci internet. ki mhm. ko xam. Mhm. Euh, mu tontu ma ci. ndax bëgg naa ko xam lool lool lool sax yàgg daal cee laaj mu bëri mais daal mhm. euh, awma ci réponse bu ma doy. amoo ci réponse bu la doy. waaw kon yow mi nga xamante ne yow yaa koy déglu. te yow mi nga xam ne nag xam nga li nga xamante ne moom la la laaj. bul fàtte nag commentaire bind li nga xamante ne moom mooy réponse bi. moom nee li nga xamante ne moom mooy koŋ na lañ koy waxee ci tubaab waaye beneen bi di. ndulli nan lañ koy waxee ci tubaab ak leneen li muy rëq te yépp ci xeetu dóor la waaye beneen bi tamit nekk li nga xam ne moom mooy kuccal beneen bi di xeetu ñaf ak xët yow mi nga xamante ne xam nga baat yi ñoo ngi xaar sa réponse ci li nga xamante ne mooy commentaire yi Abdou Khadre yaakaar naa internet bi dégg nañ li nga xamante ne tey moom nga lañ jox ci seen première émission. Mhm. yow tey lan ngay xa internet yi nga xamante ne ñoo ngi seetaan émission bi ak lan nga lañ fas yéenee dikk ci yeneen numéro waaw xam naa dina ñëwaat ci yeneen numéro ci yeneen i waat yoo xamante ne danaa leen ko posé waat maanaam gis naa ko ci wolof te gisuma ko ci tubaab wala gisuma ko ci beneen làkk yooyu dinañ ñëwaat bu gannaaw bi liy jàllee beneen bi may wax jeunesse bi mooy euh, euh, ñu takku taxaw rek mhm. euh, daal xam ni suñu langue bi amul beneen langue bu ko gën a riche. Mm-hmm. Euh, ñu takku taxawu te nit bu bëggee avancé wala mu bëgg réew bëgg avancé mm-hmm. faa mu taxawu ci làngam ba pare mm-hmm. waaw comme ni ma ci daan waxtaanee ak sama benn xarit bu ñuy wax Seck. Abdourahmane Seck. moo ko doon waxee ci ni li Cheikh Anta Diop waxoon ni gémm ñu jàmbur. kenn mënu cee suuf kon ñun. mënuñoo suur ci beneen gémmiñ mënuñoo suuree ci beneen langue mhm. lu dul suñu wolof yi ñu am kon nañ ko dundal taxawal ko mhm. bu ñu bëggee avancer bu ñu bëggee avancer nañ ko dundal taxawal ko boo leen déggee ci biir waxam mi ngi naan am na kilifa bu mag boo xamante ne sénégalais la mi ngi naan gémmiñu jàmbur kenn mënu ci suur te yaakaar naa ñun am nañ suñu gémmiñ mooy nañ dundal suñu wolof bi te nañ ko respecté te yaakaar naa ne ku xam suñu langue bi xam ne langue bu riche la Abdou Khadir dégg nañ li nga wax fii yëpp mhm. xam naa ne dañ lay jox rendez-vous mhm. ci beneen numéro ci émission bi nekk wala fal ah, ci télé bi nekk Kaay Seetaan TV mhm. tey ki nga xamante ne bëgg na tontu say réponse xam ko nan la mun a def euh, mun na commentaire ci suuf mu daal di abonné bu daal di commentaire suuf ne ma koŋ ñu ngi koy waxee nangam ci tubaab sët ñu ngi koy waxee nangam ci tubaab ainsi de suite ainsi de suite waaw jërëjëf yow mi nga xamante ne yaa ngi toog sa salon yaakaar naa jot nga noté li nga xamante ne mooy six mots yi nga xamante ne tey étudiant bi xelam màcc si lépp loo xamante ne wàllum wolof la boo ñu bëggee tontu mun nga ñu wax li nga xamante ne mooy koŋ nan lañ koy waxee ci tubaab waaye tamit ndulli ak rëkk ak kuccal ak ñaf ak xët six mots yi la ñuy indil tey kon mbokk internet yi nga xamante ne yeneen seetaan chaîne bi di Kaay Seetaan TV bu leen fàttee abone pour amaat suñu yeneen numéro ci émission bi nekk wolofal ñoo ngi la ñuy jox rendez ci beneen numéro jërë ngeen